loi d'amnistie bi il faut que ñu ñu def justice pour au moins ñi ci ñu doon xex ndax lool sax bu ñu tëddee mën ci ci ci jàmm bañ toogee ba tey nag ñoom nouveau régime bi dégguñu ñu yey yàbbi ci amnistie bi da yaakaaroon nañu lool lool moi suis le suis bien placé pour wax si loolu ndax j'étais victime des faits j'ai fait une année en prison pour man pour wax la mhm. pour wax la mhm. j'ai fait une année en prison on m'a arrêté ici parcelle fii au Parcelles Assainies unité 3 fi lañ ma arrêté mhm. section de recherche bu Kër Massar fu ma dem dama koy wax pour wax la rek mën la wax li tax ñu ñoom ñi li ñu wax li tax ñu arrêté parce que mom juñu na ko sàng vous êtes les casseurs yéen yéen a doon yàq ay mm-hmm. qu'est-ce qui nous qu'est-ce que qu'est-ce qui a poussé la jeune sénégalaise à se révolter à ce point là à ce point là ya manam ba Sénégal amé indépendance ba tey mm-hmm. mu ngi am ay manifestation politique mm-hmm. mais ci dayoo bobu musul am lan moko andi gis nga jamono gis nga Ablaye Wade ba fi jógee en 2012 Macky Sall dafa ñew Ablaye Wade ba muy dem lu ñu bayal moi la paix rouge mais vous avez euh, quelque chose qui ne vous arrange pas dans ce pays Vous xam nous bëgg ko manifester takk leen rouge su ma rombee gis ko taxaw nga ma laaj leen problème ngeen wax man ma dem arrivé au pouvoir ñun dañoo ñun suis amoon yaakaar ci Macky Sall amoon yaakaar ci moom lool. Macky Sall la Ousmane Sonko en fait Macky Sall je mu rouge da Yo loo yow lan nga bëgg a wax gis nga nit ay kàddoom da nga koy da nga koy nattee ci ay jëfam nit bu nekkee nit ku normal rek buy doxal da ngay xam Macky Sall c'est un rancunier c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un président par par malchance on a fait une erreur monumentale ba ñuy fal waajal ñu non. ci Sénégal fii. ba pare ah, ba pare mu forcé waat ñu boppam en 2019 sakki suñu élection. ah si c'est ça ce qui s'est passé cinquante-huit virgule non c'est c'est mais c'est aberrant nañu waxante dëgg ba ba waa ji ko yalla yeureum ba muy taxaw fi talal loxom nan 50 candidat ñoy dem boobu ñoom ils ont tout préparé nañ lépp. kon da nga japp ne. Macky Sall dafa sacc élection 2019 loolu moy li am suma ñewé suma suma ñu ci question ma posé légui légui gis nga loi d'amnistie bi. Mhm. man j'étais en prison bañ ba ko Macky Sall di promulguer ba ko mu koy wax ba muy ak élection yi prison la mu fekk. Mhm. dañ may arrêté li mu ma wax gendarmerie section de recherche bu Kër Massar commandé par euh, le major Kandji le major Abdou Aziz Kandji jàppoon nañ ne ñom Macky Sall nañ leen ci à un niveau de bassesse boo xamante ni jàppoon nañ ne mbir mi du jeex promettre leen ay grade même dañ ko doon wax suñu kanam le gars il va na diir que ñun waa Pastef ñoo doon mais saa waay bi nekkoon fii fulla ak fayda moo ko fi mënoon jëlee fulla ak fayda gu mat sëkk moo ko fiy jël moo moo fi doon jëlee gis nga bu bu bu bu bu bu ñu nekkoon fii di di di di tooyal bët di jooy ak gauche ak droite daañu ñu rey ñun ñëpp tëj ñeneen ñi kaso gon nekk Sénégal. te te réew mi du baax parce que pare woon nañu lépp ba pare ba ñu defee li ñuy def ànd ceeg genn ñenn ci ay ci chef police ak ñenn ci poste chef gendarmerie def seen njombe loolu yëpp ñu ngi koy am loolu yëpp ñu ngi koy am parce que ku man du ma tudd tuuru nit fii ci lu ma neex parce que Major Kandji moo moo moo ànd ak euh, brigade am ñëw arrêté ma man amuñu lu ñu teg ci man sama loxo lu dul da ngaa bokk Pastef yaay jiite manifestation au nom de quoi mm-hmm. ba pare di ma laaj ay nit xam nga diw. xam nga diw xam nga diw man kañ la kañ la police ak gendarmerie di wacce sen bok ba di japp ni te wuñu ben preuve nag amuñ sax ben amuñ sax convocation ci yow man ma ngi dëkk yow Kër sa di yeewoo Kër sa chaque jour que defé di xey di liggéey nga war ma mëna jox convocation ma wuy ci la nga ne ma li ak li, ak li nga def man ne la li def mako li def mako li def mako bu def la ko ma li mako def mais yow nga bayima ma ma génn Kër Massar nga top ma melni kuy top ben ngandi bi mais benen comme affaire comme comme ni nga ko euh, ni nga ko médiatiser ay terroristes lañu amaloon affaire ay salafis ay taalkatu euh, kër xalifa kilifa kilifa diine yenn médias yi lañ ci jàppale yenn journalistes yi àndoon ceeg ñoom dem ba dem ba xam ne mbir mi mbir mi ëpp na leen loxo mbëkk nañ miir bi galgal nañ façon galgal bu nekk Pastef ba Ousmane Sonko mujjee jël ay cinq candidats yóbbu leen ba kenn jàll si muy Bassirou Diomaye ñu ne déedéet dee du jàll ba ñu demee ba xam ne lii moytu la nekk ba mu taxaw di abroger loi bi convoqué corps booba xamna na ne mbir mi ma parce que dafa bëggoon justifier wu daa bëggoon rattraper wu jàllale loi amnistie ñun au en prison ñun bañ ko yéegee ñun dañ ne bëgguñu. amnistie en prison laa la wax de dañ ñëw daf ma laajal samay mbokk détenu ñu ngi ma en direct man dama ne ku ma ku ma ko andil en prison rëbës ma xotti ko wallaahi lazim kaddu yi laa fa wax ku ma ko andil en prison ma xotti ko man dañ ma atte parce que dañ ma tëj ci lu jaarul yoon te te te dañuy xëy bàyyi ma nii.

liberté nga bokk mouvement soit politique wala yaa xam liberté nga bokk ci loolu neex liberté yooyu moo ñu régir kenn fii kenn mënu fi tere nit ci loi bi nga xam ne réew mi moo ko ci diggante bi moom lu bëree bëree bëri lu mu changé lu mu changé moom Macky Sall ci bëgg-bëggam moom am lu bëree bëri bëri loo xam ne ba muy mbiram changé na ko assemblée yii def na nit ñi doon nelaw boobu am lu muy waajal jël manifestation def ko affaire terrorisme def def lu ko neex nit ay wala ay jàpp ci Il comme pas possible gis nga nous, a nous, en prison nous, ko nous, nous bu ñu wax xaar ba élection nous, naan ay non nous, nous, gis nga ñi ci nous, ci nous, ngi nous, euh, Bamba Cissé mu koy wax euh, nous, nous, loi bi sax nous, ko en parce que ay comme crime contre l'humanité nous, loi bi mënu ko tenir en compte

ñu wax deug te yalla rek tax ndax ñu xam ne ku ci nek sa bàmmeel ya fay teud du Macky Sall la fay tëddal du Ousmane Sonko la fay tëddal gis nga li xew ci rew mi ak quel que soit lu mu mënoon a on est tous des Sénégalais mhm. amna na benn haine bi Macky Sall doon démé ci biir Sénégal waru ko woon waru ko woon te loolu mu andi li yépp ci rew mi nag dinaa ñëwaat dina ñëwaat ci yow Abdoulaye dégg nga Ndof li nga xam mom la expliqué